asalaamaaleykum mbokku internautes yi ñoo ngi leen di nuyu uh, di leen ziar uh, di wax képp kuy uh, gan ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ci ñu koy njëkk a gis wee leen di liker wee leen di commenter également te di partager vidéo yi c'est très important mbokki vidéo bi tey jii dañ koy def jagleel ko benn talent boo xamante ne mënoon ñoo wax que ne sénégalais yëpp amoon ci moom yaakaar. mais mën nañu wax euh, on peut dire que il a disparu complètement euh, donc ci ci ci botu sénégalais parce que euh, mon lañ fi doon surnommé le nouveau Khalilou Fadiga mu nekkoon un pur numéro 10 bo xamante ne dafa un talent bu extraordinaire muy wuyoo ci turu Santingom Santingom nak jour le bo à maintenir vraiment man mi di wax ak à mon âge ci mom yakar mais tay ji mën nañu wax on peut dire c'est un talent oublié mais même pas sax un talent oublié mais un un crack bo xamantene il est éphémère manam que euh, ay performance yi ko daan xaaree manam constant outil donc tey jii looloo waral ba aujourd'hui sénégalais yu bari gisatuñ ko parce que euh, en deux mille dix huit lañ ko njëkkoon wo euh, ci équipe nationale bu Sénégal ci ben match amical bu doon Sénégal am ak ak pakistan pour waajal li nga xamantene moy coupe du monde euh, coupe du monde deux mille deux mille dix huit donc Santy ci boobu la match mu joué plus de quatre vingt six minutes quatre vingt six minutes yooyu mu def passe dix yi mu nekkoon un match boo xamante ne mën nañoo wax match référence la ci moom euh, ci équipe nationale bu Sénégal donc match boobu noonu ñëpp di wax que ne trouvé nañ suñu suñu numéro dix.

mom Santé Ngom fan la nek Santé Ngom aujourd'hui mën nañu wax que ni eh, bi mu djugo djugé Nantes joué Ligue 1 pour France Ligue 2 ak Nantes donc donc mu nekkoon ay goudi difficile euh aujourd'hui tay mën nañu wax eh, mi ngi ci national bu France daw ci saison be passé mën nañu wax defoon na saison bo xamantene ne nañu wax que ni eh, liñ nan temps de jeu mon nako au niveau de FC7 FC7 moujou le 6 match je pense que ni euh, dougal plus pile 6 bi euh, ou 8 suma djumul donc mu une euh, saison bu intéressant bo xamantene mom defon nako gannaaw bi mu jugé Nantes jaar Nancy jaar Caen donc dadi jouer ak club bobu du 7 mu nekk une saison intéressant bo xamantene à 28 ans euh, mu am solo donc ñu doon xaar que est-ce que dina ci France et tout ça Ligue 2 donc rendi euh, mu national ci benen club bu ñu wax donc actuellement ni euh, fofu le Santi Ngom pour ñi nga xamantene ngi le numéro 10 qui nga le nouveau Khalilou Fadiga donc aujourd'hui il a disparu complètement euh, les radars donc mu nek lo xamantene ne dit ni ñun ñi dañuy am lu ñu metti parce que buñu ñu talent wu Santingom un numéro 10 bo xamantene en am vision de jeu bu exceptionnel techniquement il est au-dessus de la moyenne mon Santingom aujourd'hui ko xamantene tay jar nga Paris jarnante Nantes ci club yo nga xamantene ami mën nañu wax club yu mag lañ fofé ci France donc aujourd'hui kenn gisatu la donc loolu dafay xaw a nekk loo a ne tey jii talent la bo xamantene il est éphémère talent bo xamantene ne attente yi ñu doon xaar ci moom gisuñu ko ci moom mais aujourd'hui euh, Santy Ngom mi ngi am 29 ans donc à 29 ans Santy Ngom war a relève relève waa jugaat donc euh, pour ñëwaat ci haut niveau est-ce que loolu dina nekk loolu dañuy xa gi xool ba xam ci euh, trois ans yu jëm ba xam Santy Ngom dina relever défi boobu noonu mais en tout cas c'est un talent boo xamante ne tey jii kenn dootu ko fàtte un milieu offensif pur numéro 10 mais aujourd'hui attente yi ñu doon xaar ci moom euh, defu ko mais tey li leen doon indiloon mbokk yi dina wax euh, képp kuy gan ci chaîne bi te abonné goo ñoo ngi lay ñaan nga abonné bas kolos bi caa ngeen jëf